yàlla def tamit soxnaa mi nekk sumay tante nekk sumay yaay xam nga kër gi tamit doom yëpp nekk sumay xarit waaw lu mu sañ def doomam rek sañ na ma ko def parce que ñëpp daf ñu njabootee te ku nekk xam na tamit aussi defar tax a ñëw te ku nekk xam ne tamit aussi lu mu def ci làmb moom pour promoteur defaat ko fi dina difficile ñu ngi koy ñaan nag ah waaw mais nag bon champion la ci lu mu doon quoi mm-hmm. ok kon tam aussi bu ñëwee pour defar rek. Mm-hmm. tey ñu dañuy ànd ak moom ci loolu. voilà bu ko déggee nag bon nekk na loo xam ne dérangé na suma suma staff dérangé na sumay fans dérangé na sumay nit suma am jàmm mm-hmm. mais itam aussi lépp loo gis waxtaan la rek suñu papa la aussi ah mm-hmm. waaw loolu la demee quoi dafay waxtaanaat ak ñu rek xam ni bon ñoo bokk liggéey bi xam nga loolu la quoi xam nga liggéey bi ñoo ko bokk mënu dem sans ñun ñu muñ dem sans moom waaw dañuy job dañuy wax waxtaan en plus mën nañu papa quoi mm-hmm. te tamit aussi suñu papa la aussi tamit aussi xolam rafet na liggéey rek moo tax ju amul benn problème bën na xët-xët nag waaw père moom waaw bën waaw na xët-xët mais amul ba xol bi moom dara newu ci loo fekk ci moom yaaka moom xam nga day ree xol bi dara newu ci ah lu muy jàppee noonu lay bàyyee waaw suñu père la quoi borom baax la père gas ñu koy nuyu di ko ziar loolu léegi combat bi Lamine ñu siiwal bële bële yàgg ñu xëy xëy indiwaat bi ne nga mettoon na sa ay nit wala mm. amuñ ñu woon kii lan moo waral diggante bi changement bi am dañ la jox euh, indi Lac de nga ne moo moo la dàqal wala lu tax bële dañ. non sport la parce que làmb mënoon ñu bañ boole amaana bu Gris Bordeaux bëre woon ak Balla Gaye ma bëre ak Bombardier làmb du ñu boole moom. parce bëri nañ deux fois ma ak moom. làmb boole gu ñu woon léegi. Lac de Guiers waaw làmb boole waat gu ñu woon léegi xëy na mënoon na nekk ci kanam mais boole waat gu ñu léegi. lu tax nga nangu ko aussi voilà merci parce xam ne làmb ak fu mu toll nii. champion laa nekkul question ko dama koy. non non non parce que dañoo bëri deux fois ok benn bi gis ngeen nu mu demee. waaw combat bu métti. bu métti ngeen bëri. waaw combat bu métti lañu bëri <laughs> ok. <laughs> dafaa génne lii mooy combat. bëri eh. combat bu neex. li fa xew yi ñëpp ah. xam ngeen ko gis ngeen ko. dëgg waaw lu wax bu suul. <laughs> waaw d' accord deuxième combat bi yàlla suñu borom may ma ndam. ci diggante boobu tam aussi différence am na su ma juumlee. ok kon tam aussi suñu demee ba làmb tollu moment bii rek champion la kon ñii champion gis nañu war nañ ko mën a jël bëreeg moom dañ koy jël bëreeg moom je pense que loolu moo tax ñu jël ko. combat te tamit aussi kon wax rek ki tëgg combat itam aussi dafa ñëw pour defar. pour defar mu père lépp lu mu bëgg rek ñun bëri war nañ ko mën a yombalal. Mhm. évidemment bu mu fa tegee loolu ñu waxtaan ak man su ma staff ñii ne nii ñii ne nii mais un problème làmb la. Mhm. war nañ mën a bëreeg moom mais dañuy bëreeg moom loolu mooy suñu combat taxaw. maanaam su ma la déggee staff bi daf ci am ñu d'accord kon nga jël Lac de waaw parce que am nañ ci xam dañu gis ne làmb boole gu ma ak moom léegi waaw. waaw hmm. yow nga jël ko léegi. combat bi taxaw. waaw yaa ngi dégg bi combat bi taxawee ñu déclaré ko seen premier jàkkaarloo. Hmm. mbër moo xam ne bëri ngeen ñaari yoon Lamine. Hmm. nga daan ko ngeen mat si niil ngeen war a bëri ñetteeli combat. te ci biir wax nga daan làmb boolee gëloon heure bii est-ce que danger amul si bi bi bii bés ci yow. danger mënutul am ci man lu des suma carrière ci làmb. parce que mbër yëpp danger dama bëri ñoom ba pare. Hmm. li ma wax rek ñam naa défaite ñam naa victoire xam naa ñaari lu muy saf. noggatu nañ ma tamit aussi ci làmb carrière naa ci daal. ci bopp rek fépp. waaw waaw. moo tax dara jaaxalatu la ci. non non non su ma ko waxul sax yéen ñi war ngeen ko xam tàkkusaan bu ne am naa ko fi. adversaire bi noo ko gisee. waaw làmb la kon yeneen combat dégg nga li mu wax bari ki démb. waaw dégg naa ko loolu dinaa ci wax mais du ma ci sori. Mm-hmm. parce que dama ne woon sax duma ci wax. ma déggee internet bi commentaire yi yàlla xam ne bëgguma ci woon wax lépp lu ma naqari woon dama ko bu ñu bàyyi mu jàll mais dinaa ci wax tuuti rek pour ñu bref ñu bañ ci toppal di wax. maanaam parce que man xam nga su ñuy wax des fois ñun Lamine li ñuy gën a arrangé mooy aspect sportif bi mm. yaa ngi dégg mais yow loo ci loo euh, yow loo bëgg a boros mais sport bi moom moo ñuy gën euh, kii quoi moo ñuy ëppal intérêt ñun mm. par rapport ak euh, xëy na yoo xam ne nii comme ni ma ko waxoon keroog rek ñun maîtriser wuñ ko waaw man duma parce que soo gisee waxtaan bi dugg nga fa junj nga ko mm-hmm. damay waxtu su nekk ma pour tontonte mm-hmm. wala di téysante wala muy wax may wax mm-hmm. non du ma suufeel bopp yu affaire manquement yooyu du ma ko du kii yooyu du ma def ok làmb moo ñu boole sport nañ ko gérer si yëfu sport tey bu ñu demee ba nañu ñooy magu làmb yi léegi ñu nekk ay porte-voix war nañu xool ni ñuy waxee bu baax mbër yi ndaw ndawaan yi ñi soog a dugg ci làmb laax ñu nga xam ne ñi ay mbër yi ndaw lañ ñu ngi jóge ci mbappa dugg ci làmb sax dépassé nañ loolu sàkkantumaak ma dem ba toll fii ci làmb ba digg roi des am na loo xam ni man du suma du suma jëf du suma cër du ma ko def waxaloon na fi Modou Lo lu mel noonu yéen ñëpp a toog ah su ma juumalee en mu ne ko lu ma la xamal barki sëñ Babacar Cissé lu ma la xamal su ma ko waxee si supporter yi bala àdduna da lay baax keroog ba muy wax ñëpp a tiit ñu toog ci télé bi di seetaante ñu tiit boole ci waat yu waat yu doy waar waat yu métti métti métti métti Modou mu ko wax. yow mu ngaa tas réew est que daan na Modou Lo bu mu ci jóge loolu du stratégie xam nga bataille sociologique lañ koy wax doon naa dégg nga français effet bu du foofu effet bi yaag mbër mi la non daf leen yëfi góor parce que am na loo xam ne di yëfi góor am na loo xam ne di yëfi jàmbaar am na loo xam ne di góor yàlla man menuma noonu parce que damaa xam sport même mbër bi may bëreel daan la barki Seydina Mohamed yéenoo ma lu métti parce xam naa ne yeewu nga cinq heures du matin xam naa li may daj yëkkati weñ yi di dem des fois di bëgg a lekk doo lekk di wocc ngay tëdd doo nelaw sa bopp bi tourné coono jooju mbër di daj yëpp ci ay weer ñëw ñàkk combat am neexul ñu may bëreel sax ñu ñàkk seen combat yi yàlla ñu tim xam na ni damay am yërmande si ñoom su ma jàkkaarloo ñu damay bëri kees du ma leen sax si mën a sigi xool man ma match nii rek yow sax laa la gën a mën a xool ko ma daan la mu toog ci télé bi waxal na ko Modou wax ju ñaaw ju ne mu wax ko waxal nag Félix Nicolas Bécaye mbay tey Eumeu Sène la ba pare li ma gën a metti ci wax ji mooy waat yi mu waat jullit du waat te li ngay wax yow boo tëddee xam ne dara du ci dëgg dara du ci dëgg man mel ma noonu man dama am jaar-jaar suma life man banlieue laa Pikine laa juddoo yaroo fa màggee fa li may wax ñi ma dëkkal xam nañ ko baax xam nañ suma xale ba suma mag man damaa gunge su may mag ba ñu yegg ñu war a yegg yegg ma gérer suma carrière su may rakk dama leen di jàppale mais aw ma xol ak xalaat boobu ñemewu noonu yàlla suñu borom sama jëb yi dama koy tëdd ba 3 heures du matin mais du julli di naafle ba fajar du ma taxaw di kon war naa mën a rusa sax sëgg na damay jàmm yàlla suñu borom parce que ñaan doomu aadama bu ko am dëgg-dëgg te muy dëgg ci yow war ngaa rusa jël sa jëb di ko sëgg suuf na da nga yàlla mooy maye. li yàlla na mu ci doomu aadama kenn mun ci dara nañ bàyyi moom ci boppam sax la bàyyi genre communication boobu ba pare mu gën a métti muy naan su fekkee li mu wax amul yàlla bu ma ko daan billaahi wallaahi yàlla ñu yàlla àtte ci jëf jooju mu wax kàddu boobu wax hmm. waaw yàlla ñu yàlla àtte ci loolu mu wax meruma ci nag de sérieusement non non non hmm. damay wax ak dal hmm. damay wax ak teey te yow est-ce que loolu man waxu ko pour jéem laa déstabiliser ci côté combat bi pour mën la daanak ak yooyu est-ce que jàpp ne foofu lay waxee wala. noo non non mun na waxee foofu mun na bañ waxee foofu moom moo xam lu mu ci sentir boo ko mais Boy ñaar suma rakk la Ama suma rakk lañ dañu ñëw suma kër di dugg sama biir néeg di jël samay dàll di ñëw di wax soxna si yekkal mi yekk añ sama signature open de presse ñooy ànd ñëpp sama kër dañuy dugg ba ci biir ba sama néegu biir. ku na xam ne suma ma digganteeg Boy Niang jàmm ji ci am mais bul jéem a wax waxu jaxase li mu wax moom bu toogee ak famille rek war na ruso ba mu yeew war na su si génn xool soxna wala ay doomam maa ngi koy dégg mu naan ay des na ay yeneen signature combat lay xaar man dépassé naa fu may toogee ci télé di xuloo wala may werante parce que dama may doom am ay kilifa yu may seetaan am ay responsable ay noble yi toog du ma seetaan ak seeni doom du ma jóge foofu di werante télé bi ñuy coow naa sama nekkoon di xuloo wala mu werante dépassé naa loolu xam naa dina créer na wax na wax après Ama Baldé na wax yeneen nañ koy wax ay fausse information muy dajal lépp ñoo di wax làmb la na yem ci cadre sport mais seen combat dafa mel dafa nar tàng de ni ma gisee mu démarré nii. non non amiin troisième na tàng tàng loolu tàng non tàng maanaam ci côté bëre ci côté xeex. ak adversité. parce que nag wax naa ko keroog da nga sonal gaa géej waay de ëmb la nga fa dugg dafa bëri trop. non est-ce que dugg fa quatre fois. non lamb la du question dugg duggaat dugg sport la. Uh-huh. waaw ñu ñooy mayante xaalis. Uh-huh. du dëgg. dañuy bëre may teew li ñu ak ay gaañ bu ñu bëree pare def nañ signature combat lépp mosu si dégg lu ñaaw Balla Gaye itam ba ñu bëree maa moom ku na xam ne caas ak la mais su ma amee naqar day ñëw suma kër jaale si ma su amee naqar damay ñëw këram jaale si ko Modou dañoo bëri mu daan ma ku ne xam ne ni ko bi demee bu mu génne àdduna kenn njëkkuma fa saafante ñaar jaale ko ay mbokkam yëpp ñaa xarañeeg ñëpp képp ku nitam am nañu ñëw sax baalu ma na ma ama seen baal ñu ax borom xol bu rafet nga ma xamal ni sport la bu boole warut a tàqalee Balla Gaye ba magam génne àdduna maam moom ñoo naa ba ci dëjëm mu dugal ma ci néegu yaayam présenté ma yaayam yaayam ak suma yaay ñoo foondoo xale Hmm. yaay balek su ma ñëw fondoo xale amay jaar-jaar yu bëri amaan ñu jaar tey dem nañ bay bëri ñaar sport la bala bëri na xët-xët mi intérieurement nag xoolee am benn problème lamb la bu lamb jeex na ñu waxante loolu Gris Bordeaux su gisee nekk ay gaayan loolu la ah, bëri ngeen combat bu métti de combat yu ma bëri Gris Bordeaux mu métti musuma ko bëree combat métti noonu tey doomam ak jabaram dañuy forcé suma ci dañuy ñëw suma kër samay doom dañuy dem këram looloo waral tey mu rafet nii maag moom ba ñu wax diggante Boy Niang Gris Bordeaux dama ne ko Boy Niang laay faral te boobu is ce que nekkul doomam yaa ngi suma kër. <laughs> mais sportivement xam na ni làmb bu jeexee dañu ko ne suñu xaritoo du affaire de làmb. rakka Maodo bi bëri waa Pikine waa Pikine waa waa Parcelles lay faral waa kii lay faral waa waa Fass faral. làmb sport la lii nii jaru ko fii waxante lu ñaaw wala jëf ju ñaaw jaru ko fi amu fi place et puis li nga ko laaj ak lu mu tontu amul sens da nga xam ne kii waxu kuy jaxase lay def man amuma problème boobu man boo ma xoolee man doomu séeréer ak joolaa soo ma xoolee xam ne man détail du su ma yëf yàlla teral na ma nekk naa roi des arènes nekk naa champion d'Afrique lépp luy bëri naa drapeau chef de l'État kase yi gën a bokk naa ci ñu ko bëri ama su may rak sax yegguñ fa maa ngi ñaa ñu yegg fa ñu dépasé ko maa leen koy yéene comme man lan laay jug di soxor wala may yéene wala may def def no am na loo xam ni man du mu xaju ci man ma dee sama moo gën du ma ko def li mu wax nii méttiwu ma dérangé wu ma mais dama wax parce que juste il faut que nga leeral parce que bu dee booy ñaag man rek yàlla mu te moom amaana munoon naa munoon nañ bañ a déggante munoon naa sa bañ a woo parce xam naa nit bu mu doon nit la nit bu nite la mais dafa may mbokk am ay am ñu ñu bëgg Pikine boobu muy wax mënuñu xaajale man Pikine laa juddoo yaroo fa màggee fa diggee fa daali mbapatee fa di ñibbi ba léegi gënuma Pikine seize communes Pikine yi laa bokk laa nekk Boy Niang déggante nañ jëm. déggante nañ naa si waxtaan. waaw parce que ñàkkul ni moom seetaan ko. non moom amu ci problème yooyu suma ma grand nga kenn mënu ma jaxase ak yow xam naa soxal lu mel xam naa yaay kan maag yow jàmm lañ sekk te rafet lañ sekk te loolu la ñuy mës a sekk maag yow maag ma sama frère nga bu dee yow ak yow la yàlla amaana na mënoon nañ bañ a diggante dafa am problème Boy ñaa def ma problème papaam dama dem contact ak moom. Père de Gaulle Père dañ daa contact. ci ñu ma jàngal bari ci la bokk sama combat Modou Lo wala sama combat yi Bombardier damaa dem ba ba ne ginnaaw suba la combat bi maag ko ñoo toog ak Boy Niang teg suñu stratégie hmm. si si saalam mun ne ma combat bi nii la nii dindi li boo wekk lii nga def nii nii ngay def ñu dem daan Bombardier ñibbi si Baston tamit aussi noonu hmm. sama combat bi mujj dafa ñëw suma kër ñoom ñëpp ñu ñëw ba ñëwee ba ne suba la combat xam ginnaaw suba la combat dama leen ibbil te ku ne xam ne ne mbër bu combat am jege nu mel doo ñëw dugg ci biir suñu saag ñi daw joppanteeg ñoom rofoo ku ci nekk joxe xam-xamam na ma làmb ji lii la lii nga ci moytu lii lañ ci gis nii ak nii ak ñu waxtaan boo ñaar du bëre benn combat bu ñëw suma gaale toog bëre nag bàyyi ma ñoon seen combat ñoom ñaar dañu ñëw suma ñoom ñaar ñëpp billaahi wallaahi <laughs> bàyyi ma di ñëw booy ñaar di ñëw bàyyi ma ñoon booy ñaar dugg ci làmb xamu sax làmb voilà te booy ñaar bu ñu nekk suma rakk tam aussi mais ñu bokk Pikine amul problème ba ñu bëre kii day ñëw tey kii ñëw su wala ñu ñëw di fekkante aw ma problème ak ñoom ñuy nekk à l'aise man su ma xamoon lii daan mbër Modou Lo daan roi na yàgg ci man de su ma lii daan mbër <laughs> dama koy jubalee ci Modou Lo daan nangu garder sa roi garder sama roi léegi ba tey Lamine ci wax jooju parce que dañ fa am luñ fa jot a dégg benn nit boo xam ne pour am génne na fa parce que keroog ci signature contrat bi fa la wax boobu jógee bi ñu leen di présenté muy Yann Bass mhm. relation boobu sa digganteeg kooku wala seen digganteeg kooku man sa nee naa ko est-ce que du ngem ngeen di xëccoo wala yu mel noonu. dafa naan mooy mhm. du loo sax lu ma waroon wax parce que du du maag moom wala lu ñu war a wax sama diggante ak moom. lu ndaw la rek mais tam aussi kon da ngay tudd tout le temps mhm. dinaa leeral tuuti rek te li ma wax moom dina ma dégg papaam dina ma dégg. Yann. papa moo nekkoon suma sëriñ papa moo nekk suma papa di may ñaanal te daa defar cere dëkk ba indi ko soxnaam defar ko indi ma ko ba suma kër ma koy lekk su ne suba danaa ma suba rek victoire bi li ngay reeree. papa Yane papa daa yónnee cere soxnaam da ko defar yónnee ma ko moo ciy lekk ay fan. papaam mooy suma sëriñ moo may ñaanal mooy suma goro mooy suma papa pour mu leer mhm. yaan du sëriñ. munul bind munul xaati munul sunguf li may wax waa këram ñu may dégg sama combat jee moo jot mu ñaan ma na ma ëmma seen ñaana ma sama papa dama bëgg dem làmb ji sama papa bàyyi ma ma dem làmb ji papa ma may dégg ah. ma ñëw na ko yaan ba bëgg ànd ak moom ci làmb ji mu ne ma yow de boo naa ko may loolu moo waral yaan ñëw ci làmb ji contre Bombardier sol faaru mbaam bi ak ay daal presque am ku mu contrôlé combat bi jeex ñu ko ne suñu xaritoo maak moom yaan ànduñu lu tolloog un an mhm. non benn combat la mu gunge muy combat boobu combat bi jeex na ànd naag sumay nit pour dem France feete suma victoire ñu toog mu waxtaan mm-hmm. ba ñu dugalee visa yi ba pare mu ñëw na damay dem ah. ma ko ah bëgg nga dem mais da nga a wax ne ma da nga bëgg a dem Canada mm-hmm. ñu bàyyi ba yàlla defee nag affaire yi passé mamaa ñëwoon Canada bu ñu dem ànd vacances bu ñu paree ñibbisi mm-hmm. ñu xaw ci am benn coow bu ndaw ma ne ko nag ñii sumay yu démb lañ dama leen xam tey démb tey soo ko ñëw suma mais dem aussi nañ ko gérer ñu kaf reetaan mu def ñu ko problème ñu bokk añandoo reetaan mu ñibbi ma toog suma kër lii la maag yaan ci dara yaan saagawu ma wax ma lu mu ko lu ma warul wax dépassé wu ma ko dépassé wu ma ko wax ma lu ko war a wax sëkkuñu dara jotewuñu dara nekkuma di xëccoo suma diggante diw ak diw diw ak diw yaan suma xarit la mhm. papaam moo nekk suma pap nekk suma wëlëre ci lañ xamante maag moom connaissance ci la am ñu sekk jàmm kese ah? loolu la moom mu may dégg amul beneen leneen lu ñu jote maak moom point voilà pour nit ñi xam ni uh-huh. lat uh-huh. maak moom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi am na loo xam ne dara jar fu ci lu ñaaw nit booy wax da ngay xool rafet nga koy wax uh-huh. na fexe xaw ma maa koy njëkk a dee xaw ma moo may njëkk a dee mais bis mu ko njëkkee dee seede bu ma seedeel nii na taxaw su ma dëj seedeel ma ko leneen lu mu ci wax lu lii rek du nit lii ma la wax nii moom la yaa ngi may dégg maa ngi lay dégg seede bii xaw ma maa lay njëkk a dee xaw ma yaa may njëkk a dee mais nag nga fexe bu seede beneen seede bu seede bii su ma la njëkkee dee man de bis boo ma njëkkee yàlla defee lu gën su ma ñëwee sa dëj dinaa sigi. am na solo dégg wax bu baax. noonu la mbir mi demee. maa ngi jégalu nag ñëpp su fekkee wax bi am na lu ci ñaaw ñu xam ne doomu aadama laa rek mm-hmm. nit day juum mais waxuma pour blesser kenn mm-hmm. waxuma aussi tamit pour tontonte ak moom. li ma wax dafa importance waxuma pour di jokk pour werante xuloo ay demal non non non juste rek dama koy wax pour mu xam àdduna barki yonent yàlla Muhammad laa lay waatal yéenoo ma mbër ku dul booy ñaa sax mbër yu may bëree sax yéenoo ma leen lu bon du ma leen def lu bon du ma genre nit façon yooyu du ma genre boobu dégg wax bi jàmm laa sëkk ak ñëpp sama kër laa toog ak suma famille su ma demee bëri ji ba pare damay ñëw toog suma famille ak sumay nit du dëgg noonu la mbir mi demee yéenoo ma kenn lu bon pakk xalaatuma ko yàlla suñu borom moo yor ndamam yu sàkk doomu aadamam teg ko fu ma teg na ko demal avancé la nii ak nii nii lay demee du ama seen moo ñëw di kale kooku aw ma esprit boobu lat lamb bu ñu ko sékkee nañ sékk loo xam ne ci wàllu sport mais wax loo xam ñu ngi lay laaj ci diggante waaye ak Pikine nga naan ama seen ko xanaa yow ñëpp nga xamal yow koy bëri rek da taxaw ba pare waat yi ngay waat ci la nga ko teg doomu jullit nga doomu julli na xam doomu julli te werante wu ma ak yow du ma la xas xamaluma la dara même ma la xamalee dara lu ñaaw lool duma ko wax du ma ko jëfee parce que loolu boolewuñu ma ak yow dañ la woo ci sport fekk suñu ci sport mais bul nekk diggante nit ak nit déedéet man jullit la góor laa jullit laa góor laa góor ak jullit bu ñu koy wax nekkul ci yére booy sol wala oto bi ngay yor wala ci xol la ak jëf yaa ngi dégg wax baax may expliqué yëfi góor laay def yëfi jullit nga fu may expliqué. Mm-hmm. rus naa di def yenn détails yi. am na solo voilà noonu léegi loolu leer na léegi damay ñëw ci yéen ñaar combat bi lamin faw ñu wax ci parce que moom ci ni ma ko déggee man ci côté lamb bi mm-hmm. bi yoon day baatare sa kaw moom la wax entraîneur yi moom la dinañ ko dinañ ko ne ay problème loolu la ñu wax waaw day dagg jéngi yi maanaam jàmmaar jàmmarloog yow fetel jiyaar ngeen xeex bëre te daan bi moom jàpp na ni bi yoon moom mën wax ba génn ba du la daan du nekkul bees bees si ñun quoi loolu nekkul bees bees si yi nekkul ci bees bees si ñëpp ah loolu moom ku ne xam ne ne laat combat ñëpp ko fonk yaaw jaal combat am da koy fonk lamb lamb la képp ku am combat di ko fonk di nga entraîné bu la nag ci lan bu ñëwee xeex yow attaqué la waaw lamb la dañuy sóor lépp rek xëy na nag li mu daa wax ah. dina wuteeg bi bii dina ñëw def différence ah. waaw dina ñëw xëy na xeex bëree ko nu mu ko bëggee nu mu ko waxee ah. waaw lamb ku gën a dégg bëri ku dàq bëri parce que laaj naa ko mu ko dafa mel ni moom ko euh, nee la dàq bëri de yaa ah, ah. la ku mën a bëri la champion la nag ah. parce que aussi rasu ak ak moytu ta bokk na ci mën bëree. ah te nag defe naa su ma juumul su ma juumul yow rekk ko daan ci làmb de daa mel ni mbër mu mag mbër mu mag lay daa mel ni mu mag la de. waaw mbër mag la benn defet la am yaakaar naa. bëri lan la songu. rasu. ak lan. mais rasu jeexul xeex. waaw loolu. waaw waaw loolu mbër la champion la mën rasu. daa rasu rek mën a moytu. mën na loolu. non dafa naag a moytu. waaw dama toog bason bason sama papa ñu mun a ba gars yi jàng dur maa ngi jàng fente. <laughs> moo tax bëri naa ba pare jaaluma. Euh. waaw mais moytu ak ak ak rasu. ci mën bëre la bokk. Hmm. moom mën na bëri ah la la dégg champion la duñ ko bañal duñ ko bañal qualité ma mbër la hmm. waaw champion la mën na bëri. saraxuma bëre